Baas Pulo. lay ndeysaan Pape Cheikh Diallo Pape Cheikh Diouf. wallaay wallaay Baas Pulo ndeysaan. di lay macha allah. Pape Cheikh Diallo. waaw jaari. nuyu naa la. fay naa la fay naa la Baas. Ah, lay kontante rek lañ am. wallaahi wallaahi ndax jëmm jooju toog. Mhm. da di sama doomu ndey sama xarit di sama jëkkër. Mhm. macha allah. Pape Pape Cheikh bu ñuy wax ci moom tey fii fanaan. wallaahi mën fay fanaan sax. lay si la ñu fanaan ba tax ne man dama dugg rek. Ah. pour ñaanal ko rek. amiin jaari li mu dë bëntal bu soobee yàlla yàlla na ci yàlla def ah, jàmm. amiin yaa rabbi amiin waay. mu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin. amiin amiin. Pape Cheikh ah, Diouf baax na mooy géej gi am na ndox. wallaahi wallaahi baas. ñun daal ñun famille Bassène yi ñun famille Tukulóor yi ñun ñëpp ñu koy ñaanal. waaw yal na ko yàlla defal jàmm bàyyi koog soxnaam. allahumma amiin ah làq leen tamit fu yàq eggul macha allah. amiin yaa rabbi amiin amiin amiin émission bi fii lay tamit wax dëgg saa la ñeneen tamit ñëw ku nekk ñëw ñam ci macha allah. ndeysaan wallaahi waaye Pape Cheikh Diallo yow moom ca kaw ca kanam rek. Seydi Bass bég naa. ndeysaan kontaan naa lool jaari. am na beneen surprise nag bu nekk ci wetam. ah ay dali waxal allo. waaw ñu ngi dégg. Pape Cheikh nga def. ñu ngi sant bu baax. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant maa ngi sant bu wér. alhamdulilah góoru corog Ami Mané nuyu naa la. wallaay fay naa la fay naa la. donc <laughs> sama doom la Aïda. yaa ko war nag euh, euh, <laughs> kooku kooku du ma wax sax li ma bokk ak moom. ndeysaan je wax ni sama waykat la man. wallaahi. waaw muy sama chérie tante. bébé mhm. Pape Cheikh bu ñuy wax fii duñ fi jóg. parce que lépp lu ñu waroon wax jaari baas wax na ko. wallaahi. waaye toog nga ku baax. Mhm. toog nga ko gën. Mhm. invité nga ku riis. Mhm. ku ñu bëgg. bëgg famille Bébé Baas. jërëjëf nit ku am respect nit. am yëg ci nit fonk doomu aadama. booy wax fii duma fi jóge ndax lépp lu ma war a wax rek dama koy dëxañ ndax kenn du Papa Diouf. bëgguñu ba mu jeex respecté na xam ñooy kan. teg ñu fonk ñu ku fonk waajuram teg ci. bëgg waajuram suudewu bëgg ay rakkam fonk ay rakkam bëgg képp koo xam ne rek dafa taq ci moom mi ngi noonu toog muy Pape Diouf bàyyi Mouhamed dama lay ñaanal yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla def amiin waay Aïda amiin Aïda fekk lépp nag yàlla du sédd la dara sa ginnaaw ci dara papa kontaan naa Aïda xarit nag sa moom papa ah oui <laughs> waaw waran ka ma fille de luxe <laughs> aussi ñu kontaan madame ma fille de luxe waaw nee na moom it mi ngi leen di nuyu <laughs> jërëjëf encore merci beaucoup. merci kontaan nañu. merci Diary. voilà Diary ñu ngi koy gërëm bu baax c'est vrai que ñi bëgg a jokkoo ak Pape Diouf mm-hmm. bëri nañu. xëy na du ñu am temps parce que am na ay messages yu am solo yoo xamante ni quand même. Mm-hmm. Euh, bëgg naa ñu profité ci. Mm-hmm. Euh, pour que Pape Diouf jébbal ko sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi euh, préparé. surtout le 23 décembre te fi nga xamante ni mooy méridien méridien porte maillot balaa ñuy dem ci yeneen